أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين bokki jullit yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci weer wu tedd bii di ñaan yàlla sunu borom tabaraka wa taala mu nangul ñu mboolem jaamu giñ ciy def ñoo ngi nuyu ak di ziyaare ak Cheikh Mouhamadul Muntaqa di ko ñaanal yàlla mu yàggal ko fi te may ko fan wu gudd ak wér tam yeggale naalam yépp tañ ànd ko ak moom di nuyu itam waa daairatu muqaddamatul xidma njiital sëriñ Afiya Buso di ñaan yàlla sunu borom tabaraka wa taala jataay yi ñuy taxawal ci weeru koor ñu yàgg koo taxawe te luñ ci def rek ak liggéey yi ci des luñ ci def rek sunu borom nangul leen ko te bindal leen ci tuyaaba joo xamante ni du am fu mu yem di ñëw nag ci tomb bi sëriñ bi ubbi léegi nga xamante ni santoon nañu waxtaan bi ak fàttali ci suñ bopp fàttali ci mbokki jullit yi ñu tuddewoon ko alwaliduuna wal awlaad xuququn wa waajibaat mooy way jur yi ak njaboot gi lan mooy seen yelli yelleef ak lan mooy seeni àq loola nag yaakaar naa ne lu mat di waxtaane la ngir di ko mën a jëfe na ko borom bi tabaraka wa taala bëgge ndax jullit moom mooy ku tënku jullit mooy ku tënku mooy koo xam ne day nangu nag ñu naan ko defal ak bàyyil jullit du tënkeeku ba lu ko neex def ak lu ko neex wax jullit dafay tënku moo tax ñu tudde ko al muslim kon lu muy def ak lu muy wax war na caa xam la koy ca yàlla sant mu defe ko noona bañ caa yokk dara bañ caa wàññi dara te buñ dee seet nag kii ñuy wax baay ak kii ñuy wax yaay ñooy cosaanal ak njaboot ci lislaam ñooy sabab si nga xamante ni ginnaaw yàlla ci la doomu aadama jaar ba ñëw ci àdduna moo tax nag baay ak yaay am wàccuwaay bu mag boo xamante ni lislaam jox na leen ko ñoom ñaar ñëpp nag muy baay ak yaay ñoom ñaar ñëpp am wàccuwaay bu leen lislaam jox bëgg ñu teg leen foofee wàcce leen foofee itam buñ dee seet nag baay ak yaay ci ci gën a jege doom nuru na ne mooy yaay nuru na ne yaay moo gën a jege doom lu tax ñu wax loolu ndax ba mu ko séqeeg baay ba noppi itam dafa am ay cër yoo xamante nii sunu borom moo ko jagleel yaay moom dong moo mën a am taxawaay yooyee ci doomam ndax mooy ëmb mooy ëmb doom yaay mooy ëmb doom te baay du ko def yaay itam mooy nàmpal doom baay du def loolu ñoom ñaar ñëpp itam nag muy baay ak yaay ñoom ñaar ñëpp lañ baaxoo ñuy am yërmaande ci seen doom waaye rawatina yaay nag yaay nag su fekkee mooy ëmb di nàmpal di ëpp yërmaande waaye mooy yar itam yar bi njëkk ci doomu aadama ak liggéey bi njëkk ci doomu aadama ci yaay lañ koy séntu muy yar ak toppatoo loolu nag tegtalewul ne baay amut wàccuwaay waaye kee da ko gën a jege ngir loolu ñu tudd ndax baay kat mooy dépensé alalam nag ci doomam waxu ne yaay du ko def waaye baay lañ ko sant moom la lislaam sant muy dépensé alalam di ko joxe ci doomam kon loolu ab cër la mooy fopp waxtoom itam di ko sànq ci bitti kër ga ngir mën a liggéey ba am lu lew lu mu dunde dundale ca soxnaam ak njabootam loolu itam ab cër la waaye nag ñaari cër yu mag yooyu nag soo ko gam-gamlee ak cër yooyu yaay amoon da nga xam ne yaay moo gën a jege doom teewul nag ñoom ñaar ñépp nag ku ci nekk taxawaay ba ngay war a taxaw soo ko taxawee dañ la ko digale woon war a yayoo nag ci ay àq ci say doom àq yoo xamante ni itam ke la digaloon taxawaay yooyee moo la ko rëddal ne la yayoo nga ko moo tax sunu borom tabaraka wa taala ginnaaw bi mu diglee ñu topp ko tam ca sa selewaat mooy ñuy rafetal jëme ci ay wayjur mu jàppee ne itam ne kuy toppatoo ay wayjur toppatoo boobu nga koy toppatoo bokk na ci jëf yi gën a baax yi nga xamante ni léeg-léeg sax mu gën a kawe jihaat ci yoonu yàlla ak jihaat ci yoonu yàlla la ñuy rëy rëy léeg-léeg ngay toppatoo say wayjur ñu jiital ko ci jihaad ci yoonu yàlla loolu itam ku nekk xam na ne kon lii ñuy bëgg a waxtaan nag xam ko ba jóg ca am na solo lool ndax loo xam ne léeg-léeg ñu jiital ko ci jihaad ci yoonu yàlla loolu lu mat a bàyyi xel la sunu boroom itam tabaraka wa taala def topp ñaari wayjur mu nekk loo xam ne dana waral nit ki am ngërëmal yàlla te ngërëmal yàlla itam nag lu rëy la wa ridwaanu minallaahi akbar sunu borom nee na ngërëmal yàlla lu ko féete kaw bariwut waaye ndekete toppatoo say wayjur nañ la ko digale woon dana war a tax doom jay toppatoo wayjuram am ngërëmal yàlla yonente bi alei salaatu wasalaam moo waxoon ne ridal rabbi fii ridal waalid ngërëmal yàlla ñi ngi aju ci ngërëmal wayjur waaye nag na fekk wayjur wa gëme gërëme ko ci lu yàlla gërëm ndax waxtu wu nekk nag ñuy gis wayjur ci jamono jii mu naan gërëm naa sama doom ji bay jooy sax waaye nag ndax lam gërëme doomam joojee lu yàlla gërëm loola loola ab laaj la kon ngërëm lay waral ngërëmal borom bi mooy nga gërëm loo wéyju ci loo xam ne neex na borom bi tabaraka wa taala cër yooyu wéyju am nag muy baay di yaay moo tax sunu borom tënk ko ci laaya joo xamante ni ku ko jàng settantal ko te jëfe ko da nga jox ay wéyju àq ya njeyoo sunu borom dafa wax ci suratul isra ne wa qadaa rabbuka allaa taabudu illaa iyyah sunu borom day digle na ñu bañ a jaamu kenn wala lenn ku dul moom ñu bañ a jaamu kenn wala lenn ku dul moom buñ nangoo ndigal loolu ba noppi nag mu tegaat ci leneen ndigal ne wa bil walidayni ihsana na ngeen di rafetal itam jëme ci way jur ya gis nga nag ki la digal ne na nga ko jaamu moom rek te mooy yàlla moo la digal ngay rafetal jëme ci ay wayjur te ndigal lu jóge ci kenn nag te kooka di borom kàttan boo xam ne kàttanam ak man-manam ak amut kum yem ndigal ya ñooy tolloo lu ma bëgg a wax foofu mooy bi mu la digalee nga jaamu yàlla rek digal la ngay rafetal jëm ci say way jëme ci say way jur ñaari ndigal yooyu ñooy tolloo garaat ñooy tolloo garaat ndax kenn na leen digle te mooy yàlla tabaraka wa taala mu tecc ne imma yabilu anna indaka alkibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uf mën naa am yàlla def doom di màgg ànd ak ay way juróom ñoom ñëpp ñu nekk ci kaw suuf di dund ba ñaari way jur yooyu màggatandoo wala kenn ci ñoom màggat nee na nga la li ma lay digal yow doom mooy rafetal googee na nga koy wéyale bu leen wax mbas bu leen wax cim wala tanharhuma bu leen gëdd itam ndax lenn ci jëgut loo ci def rek dafay salfaañoo ak rafetal gi ma la digaloon waqul lahuma qawlan karima na ngay wax ak ñoom wax ju tedd wax ju nooy ndax sunu borom ci ñëpp sax la digaloon booy wax ak ñoom ngay wax ak ñoom wax ju jekk ju rafet wa qulu linnaasi xusna waaye bu ca beddi waatee ay wayjur nag ne wa qul lahuma qawlan karima da ngay wax ak ñoom wax bu tedd loolu day gën a tedd li ak juray jooju ñaari wayjur am waxfid lahuma janaxa dulli min arrahma na ngay wàcc sa bopp ci seen kanam te wane fa yërmaande bul rëy rëylu ci sa kanami wayjur ndax loo man di tollu waroo mën a rëy ci seen kan wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayaani saxira na ngay faral di wax tam di leen ñaanal ne yow yàlla yàlla na nga yërëm sama ñaari way jur yi nañ ma yërëme woon ba ma nekkee ndaw gis nga aaya ji de ku ko settantal te jëfe ko mel na ne lañ la digaloon ci sa digganteeg ci wayjur matal ko kon nuru na ne waxtaan wi ci loolu rek ci lay jëm ngir càqantal ko loolu ci borom bi tabaraka wa taala wax ci alquran itam moom la yonente bi alayhi salaatu wasalaam tedd li ne ne dee leen toppatoo seeni wayjur ndax lu ngeen leen lebal ci mbaax su ngeen amee ak njaboot ñoom itam ñu man leen a lebal lu mel noonee ci mbaax ak rafetal birru abaakum taburrukum abnaakum na ngeen di def lu baax ak rafetal jëme ci seeni wayjur ndax yàlla su ngeen amee ak njaboot ñu mën a séntu ca ñoom itam ñu def lu baax jëme ko ci yéen yonent bi alei salatu wasalaam tam waxaat feneen ne doom doom loo man di def loo man di def ci lu baax jëme ko ci say waajur mënoo leen a fay mënoo leen a fay lan yajziya waladun waalidahu lan la wax doom lum góor-góorlu ci def lu baax jëme ko ci ay waajuram du mën a matal du mën a matal seeni àq nam ko waree woon ci moom mu ne bu fekkonte ne am na koo xamante nii mën nañoo sénti ne fay na ay way juram ba matal mooy kii muy bëgg a wax mooy ku fekkoon way juram benn muy baayam wala yaayam mu nekk ku ñu yilif moom ko keneen moom ko yilif ko moom doom mu dox ba goreel baayam boobee wala yaayam joojee ba génne ko ca kilifteef googee ñu ko yilifoon nee na loolu de su amoon su amoon kooku de def na lu rëy buñ mënoon a wax ne kenn mën naa fay ay waajur ñu ne kooka fay na ay waajuram loolu kon liñ ci dégg mooy doom ju nekk war nay def kemtulaay kàttanam ngir lum néew néew néew mu jox waajuram ak ay waajuram ak yañ yeyoo woon mu def ca kemtulaay kàttanam doonte ne mënu koo matale xadis boobu mooy lan yajziya waladun waalidahu xatta yajidahu mamlukan fa yastariyahu fa yuctiqahu axrajahu muslim yonent bi an saat saam waxaat feneen itam ñoo ngi ci laytaay yi ba tey ne woon del toppatoo sa yaay ñu ne waaw mu ne del toppatoo sa baay ñu ne waaw mu ne del toppatoo sa mbokk mu jigéen ak sa mbokk mu góor ku ca tege te sës sa nga boole ko ca burra ummaka wa abaka wa uxtaka wa axaaka summa adnaaka fa adnaaka ñoo ñëpp nee na na nga leen jox seen cër yan yayoo xadis boobu An-Nasaa'i moo ko solo ba tey ñoo ngi wax ci daraja ju mag ji ay wayjur am am na waaju dikkoon ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne ko yonente bi dama bëggoon nga ràng ma ma bokk ci soldaat yi jihaad ci yoonu yàlla kon xam na moom kii doon wax loolu xam na daraja ji jihaad ci yoonu yàlla am ba mu dikk ci yonent bi ne ko dama bëgg a solu soldaat di jihaad ci yoonu yàlla loolu la wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam lu ko yonent bi ton dane ko alaka waalidatun ndax bàyyi nga sa ginnaaw wayjur wu jigéen waaja na ko waawaw am naa wayjur wu jigéen wuy dund yonent bi ne ko falzamha fa inna fa inna aljannata inda rijliha dëppal nga dem ci sa wayjur wu jigéen woowu taxoo moom di ba dab bànnee xam di ko liggéeyal di rafetal jëm ci moom te xam ne aljanna ji ngay sàkku ci jihaat ci yoonu yàlla ma nga ca ron ñaari tànkam loola kon ku ko dégg xam ne ndekete toppatoo ay wayjur mën naa tàbbal nit aljanna te loolu nag bokk na ca la ëpp solo li jullit yi sante woo bu dee jaamu yàlla ci kaw suuf mooy tàbbi aljanna kon toppatoo ay wayjur dana waral tàbbi aljanna mu amaat ku dikk ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne ko damaa bëgg a jaayanteeg yow waaye nag yonente bi mu ne ko ah mu ne ko bi may ñëw day bi ma faboo bay ñëw ci yow ah xam naa ne nuru na ne sama waajur ya de xëy na loola da leen a neexut ñëw bi ma ñëw ci yow ba tax na sax dañ doon yëkkat di jooy dama bëgg a jaayanteeg yow bis naka tey waaye ba may jóge ci sama wéyjur léegi la ma leen bàyyee mooy ña nga doon yëkkat di jooy xool leen la ko yonente bi alei salatu wasalaam tontu dane ko irjian ilayhima dëppal neel coow delluwaat ci sa ñaari wéyjur yooyee fa adxikhuma kama abkaytahuma yaa fexe woon ba ñuy jooy delluwaatal fexe bañ reetaan xam nga yoon wa nga jaaroon bañ jooy defaatal ay pexe yu mel noonu ba reetaan doole doog di ñëw ci man nag may doole nangu sag jaayante lu mel noonu kat sëriñ bi daana ko def ku bàyyi ay woy juróom ñëw bëgg a jéblu ci moom mu ne ndax am nga ci sa ndigal sa ñaari wéy nga ne ko déet mu ne delluwaatal mu roye ko ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam kon ku nekk xam na ne kon loolu moom lañ doon lay taayal ngir ku bëgg a jox ay way juram ay àqam nga xam ne loolu ma ngi lay nekk ci ay daraja ju kawe te la ca jiitu mooy tabbi aljanna kon nag ñu jàll ci tombab ñaareel bi te mooy àq yi nga xamante ni doom ju nekk yoreel na ko way juram yooyu itam ñoo ngi koy balloo ndax ñun amuñ suñu kàddu yi bopp ci alquran lañ koy balloo ba ca njëkk mooy al ixsaanu ilayhima wal ihtimaamu bihima mooy ngay rafetal jëme ci ñoom ak di leen yittewoo sunu borom bi mu ne digal naa ñu jaamu ma man rek te bañ maa bokkaale ak lenn digal naa digle naa itam ñuy rafetal jëme ci ay wëju kon nag doom war nay rafetal jëme ci ay way juram baatu rafetal la la jëfandikoo ngir bëgg dafa ubbeeku ngir bëgg gox boo mën di dem lañ jàppe ne ku ko def bégloo ay way jur te sariya nangu ko nga def lu mel noonu loola nag moo tax boo ko détaillé la ngay jiital mooy bul def lu leen di merloo bul def luy merloo sa ñaari way am des nag def loo xamante ni dëgg la dana leen merloo waaye luy gërëm loo borom bi la bu boobaa gërëm lool borom bi ndax moo la bind bind leen doonte ne ña ngi tey mer ndax lañ mer daa jot mer kon rafetal googu la ca jiitu mooy nga bañ a jëf lu leen di merloo soo bañee jëf lu leen di merloo nag da ngay jëfe safaan ba mooy ngay jëf lu leen di gërëmloo soo gisee ñu am aajo itam nga dox ca ngir aajo jee aajo joojee mën a faj ngay ànd ak ñoom itam bu fekkee yaa ngi dund ak ñoom ngay ànd ak ñoom ci njëkk aku mbaax la alquran wax ne wa saaxibuhuma fi dunya maarufa na ngay ànd ak ñoom buñ dee dund ñoom ñu ñaari way jur ci njëkk ak teraanga mu ne loolu nag digal naa la ko doonte ne ñaari way jur yi du ñuy jullit sax doonte ne du ñuy jullit yayoo nañ ci yow doom ji jullit ndax waxu takku dul jullit de ñaari way jur ya nekkul jullit yow doom ji nekk jullit ñaari way jur yooyu yayoo nañ ci yow ngay rafetal jëme ci ñoom bokk na ci rafetal jëme ci wayjur itam nga foog sa alal di ko dépensé ci ñoom su fekkee amuñ su fekkee amuñ ndax ñaari wayjur itam mën nañoo ëpp alal doom waaye su fekkee yow doom yaa leen ëpp alal na ngay dépensé sa alal ci ñoom te def ko ngir jëmi yàlla bokk na ci rafetal itam su fekkente ni tibb nañ añ wala reer tibbal leen ndab tibbal ñaari wayjur ja ndab su fekkee ñoom ñaar rek di beru di lekk neexu leen la gën ci yow doom nga sukk ànd ak ñoom bokk leen ndab lu ngeen di lekk loola ci rafet la bokk su fekkee soo leen tibbalee ñu beru ñu ne dañ ñoo ber la rafet kon mooy yow doom ngir nga rafetal jëmi ci ñoom nga dem sukk ca ndab lañ sukk di dagg ca ñam wala ca gën a baax di leen tegal loola bokk na ci rafetal sa diggante ak sa ñaari wéy bul def dara sa tàgg wóole ba ci tukki ba ci tukki boo dee tukki na nga ñëw ba ci ñoom nga ne bàyyi mu naa nga ne yaay mu naa damaa fas yéene woon a tukki di ci sàkku seen ndigal tàggoo nag bokkut ak sàkku ndigal tàggoo mooy jël nga décision bay dem doog ñëw wax leen ko rek ndigal nag mooy demagoo buñ nee la toogal nga toog suñ nee la demal nga dem loolu la ñuy wax nag na nga ñëw sàkku ci ñoom ndigal buñ la bàyyee nga dem buñ la bàyyee nga buñ la bàyyiwut nga toog lu dul nag tukki ba dafa nekk loo xamante ni mënoo koo ñàkk a def yow doom ngir ne da ngaa bëgg a sàkku ji xam-xam te sàkku xam-xam yépp sax am na ci yoo xamante ni way jur bu ca joxlewul ndigal joxe joxewul ndigal doom war naa mën a topp ndax jóg di tukki dëkk ak dëkk ngir sàkku ji xam-xam naafila la du warugar kañ lay nekk warugar mooy su fekkee xam-xam ba nga fay sàkku ji xam-xamu faratey jëmm la te fi nga dëkk kenn ku la ko fa mën a jàngal népp fa bu boobaa boo tàggoo ay wayjur ñu lànk itam mën ngaa dem ndax la ñuy lànk lànkulu ci sariyaan waaye bu dul loolu nag tukki ngir tukki rek bala ngay dem demal tàggu say wayjur bañ mañ la nga dem naka noonu itam bokk na ci rafetal ci ay wayjur nga leen di nemmeeku di xam ci luñ nekk waaye li rafetul daal mooy nga am say wayjur léeg-léeg sax ñu ngeen dëkk benn dëkk yàlla baaxale nga sanc sa kër di toog ay weer ak semaine te doo xam ci luñ nekk rafetul jëkk ndax buñ la defoon noonu mën naa am doo màgg ba am kër boo beru kon wayjur dees koy nemmeeku si bu ngeen bokkee génn kër saa soo xëyee lum jamp-jamp ak lu lay yitte yi njatamal njatamal na nga taxaw ci seen bunt nuyu leen xam laaj leen nu ñu fanaane loolu bokk na ci rafetal bokk na ci rafetal jëme ci ay wajur itam loo gis ne seen mbégte la te mbégtem diine nekk ca nga fexe ba bégloo leen ca loola loo gis ne mbégte seen mbégte ga ca waaye loolee nekk seen mbégte nekk mbégteem diine lu diine nangu nga fexe ba mbégte moomu yegg ci ñoom xabaar bu leen di bégloo itam nga teel leen koo yegg bokk ci ña leen koy jëkk xamal loola bokk na ci rafetal jëme ci ay wayjur rafetal jëme ci ay wayjur yaatu na ba ca fopp alal di ko dépensé ci ñoom waaye duuna man nin aw adan doo ko tiitaroo doo ca teg baat yoo xamante ni buñ ko déggoon du leen naqari ah sama way yu bii day gudd toon man du aji màkka maa ko yóbbu de seen kër gii day gudd toon man taw baa ngi wàcc ñoom maa ko xam di ko dégtal nit ñi loolu la ñuy bañ loo leen di defal def ko ngir jëmmi yàlla rek donte nit ñëw yëguñ ko itam borom bi tabaaraka wa taala moom yëg na ko kon loolu mooy àq ji njëkk mooy ngay rafetal jëme ci ay wajur àq ñaareel ba ikraamuhuma indal kibar mooy su yàlla defee sa ñaari wajur màggat ci sa kanam ngay dund na nga leen di teral ndax wayjur woo xamante ni man na boppam am kàttan mën naa demal boppam kon fan lay gën a yittewoo ku ko taxaw mooy bu tëlee jotee màggat ñëw foofa la ko gën a yittewoo su màggat ñëwee tëlee ñëw yow doom dañuy séntu cew mooy la nga daan liggéey jëme ko sañ say wayjur nga gën koo yokk nga gën koo yokk te bañ leen a lor itam ci ay wax yuñ bëggul wala ay jëf yuñ bëggul ku nekk xam na nag bariwaa na ñoo xamante nii suñuy màggat naqari deret la ñuy màggataale wayjur yoo xam ne suñuy màggat man naa am ba ñuy gën a ndawee neexoon nañ deret waaye dañuy màggataale naqari deret bu ba boobaa nag luñ naqari deret deret ak luñ sàng-sàng bul bu bul bu leen war na war na da ngeen a naqari deret bu leen war na da ngeen a tàng lañ la tere woon ci ñoom muy bu leen gëdd buñ la gëddee itam yow na nga seral na nga seral loola la ñuy séntu ci yow waaye ngir ñu màggat naqari deret yóoxu la nga yóoxu leen ñoom day lañ def du ne waaye yaa gën a jéggi jalgat yoon ndax yow lañ la digaloon mooy buñ la gëddee itam bu leen fay gëdd googee na ngay wax wax ju nooy ju rafet ju yell te itam bu leen lotti wax ju naqari wala jëf ju naqari ndax benn bu nekkutoon tey wayjur sax waaye mage nañ te mag dafa am cër ci lislaam borom bi jaaw lay wax sax yonent bi alei salatu wasalaam nee na ci xadis boo xam ne abu daawuda moo ko soloo nee na min ijlaalillahi taala ikraamu di saybatil muslim bokk na ci màggal yàlla tabaraka wa taala mu kawe moomee bokk na ci màggal ko ngay màggal borom bi jaaw waaye borom bi jaaw ban bu nekk ab jullit nga koy màggal mooy mag di koy jox cër su fekkee mag la nekkaat sa wayjur muy ñaari cër waaye mag du mu man di doon ginnaaw mag la des koo war a jox cër loolu yaatu na mag soo fekkee dangaa dugg ak moom ci ab autobus car nga am place mu taxaw jógal yow ndaw may ko mu toog jógal bank bi may mag mu toog nga taxaw ngir màggal ko boo ko defee day yaa ngi bokk day màgg ña màggal yàlla lii yonent bi am salaatu wasalaam waxoon ne bokk na ci màggal yàlla ngay màggal borom bi jaaw boo xam ne jullit la ndax dañuy yaakaar ne bi jaawam boobee la tax mu bi jaaw ak ndawam da koo jeexal ci lu neex yàlla kon kooka mat naa teral rawatina nag mu nekkee way ji am na waajoo xamante nii dañ koo gisoon muy wër kaaba ga ca màkkatal mukarrama di wër kaaba ga am soxna su màggat sum tungoom di ko wëraale kaaba ga ndekate yaayam am waaju ko seen xam ko ne ko diw sàngam ba mu wuyu mu ne ko xanaa day kooku nga gàddu tey day ci say loos sungoom ko yëmoo ca di ko wëral kaaba bi xanaa day lim ko yoraloon ci ay àq mat mat na tey xanaa wàccoo nga ak moom di de xam na ne yaayama de mu ne sa yaay jooju nga tungam di ko wëral kaaba bi xanaa day li la waroon sa digganteeg moom gis na te kay matal nga ko waaja ne ko déedéet xanaa du yenu gii ma yenu ko moo la jaaxal waru laa jaaxal de ndax nii ma ko yenoo ni la ma daa yenoo ba ma nekkee ndaw nii ma ko yenoo ni la ma daa yenoo moom sama yaay ji ba ma nekkee ndaw kon yenu ak yenu rek la kon luy luy suñ teqale te am na lu dox suñ diggante man ak sama yaay ji ci yenu gam ma doon yenu ak yenu gi ma ko yenu mooy lan mooy moom ba ma yenu ma nekk ndaw di ma boot waxtu nekk ma ngay ñaan yàlla ma màgg ba mu fekk samay njariñ loolu la ci daan boot dama daan boot ànd ak coono yépp muy ñaan yàlla ma màgg man nag gis na ka tey jii maa ngi ko yenu nii de nga séen ma di ma ci yërëm ak di yaakaar ne jox naa ko ay àqam te maa ngi wax ci sama xel ne kañ la ma coono bii di wàcc kañ la ma coono bii di wàcc loolu bu ko settantal danga xam ne kon kooka day ma ngay bëgg a xam àq way juróom ma ngay te lu mat di def la nag loo leen man di defal ci lu baax bàyyil xel lañ la daan defal bàyyil xel la nga daan defal ndaxte dañ la ko doon defal ba noppi nag boole ko tey bang-bang ak xale boo xam ne cëpp lay yi la fu ko neex jëm lii nga leen di defal ña ngi la ko doon defal ba noppi boole ko tey bang-bang di ko mun moo tax loo man loo leen man di defal rek dese na dese na loolu mooy ñaareel bi mooy buñ màggatee nga leen di muñal nag di leen teral ñetteel ba soo dee wax ak ñoom na ngay jëfandikoo kàddu gu ànd ak teggin na ngay jëfandikoo kàddu gu ànd ak worma bu leen këdd loolu kat si ñëpp lañ la ko digal de koo man di waxal ci biir nit ñi wax jana teey na ànd ak teggin na ànd ak worma doonte na sax yow fayu la ko def waraaci fi kulli xalqin xaqa man xalaqa loolu Sëriñ Tuubaa wax nee na doom mbindeef moo gis rek mbindeef moo gis rek na nga sàmm ci moom àq yàlla ma ko bind jëllu ko xool yàlla ma ko bind loo koy defal def ko ngir jëm yàlla moo tax Cheikh Murtada rahimahullah wa radiya anhu xaadimu rasul am na ku ma nettali ne bis dafa toog noonu nga xam ne noonu la baaxoo di joxe alalam rek di joxe ba yëkkat alal nar koo jox jenn waay joo xam ne xam nañ ne dëgg-dëgg dugub jenn waay ki ma ko doon nett daal ne daal daal ne ko am ku nekk jataay bi daal ne ko sëñ bi kii boo ko joxee ba mu ko jëmee du baax ba sëñ bi ne teg waa ji ma ko doon nett nee na maa ne sëñ bi joxoo kii yàlla ngay jox mu ne tigi waraa fi kulli xalqin xaqa man xalaq mbindeef mu nekk xool ci àq yàlla ma ko bind niveau bu kawe la maanaam foofu ku fa yegg wax ju gàtt la ju sëriñ bi wax waraa fi kulli xalqin xaqa man xalaq mbindeef mu nekk na ngay bàyyi xel àq yàlla ma ko bind loo koy def defal defal ko ngir jëm yàlla donte ne fayu la ko mu tegaat feneen itam nit ku koo yeral ak jox ko ko doonte ne séentuwoo ceew mu fay la ko loolu itam beneen niveau la kon na ngay wax ak ñoom ci ay teggin ak i worma loolu laa wax ne ñëpp nga ko war a defal rawatina sa ñaari woy bu leen digtal lu dul wax ju nooy ju tedd ndax sunu borom moo la ko santoon ci fala taqul lahuma uf wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima bu leen gàddaay bu leen gàddaay bul meroog ñoom bul meroog sa ñaari wayjur ndax yonent bi alei salatu wasalaam tëkkoo woon na ci tëkkoo bu doy waar ci koo xamante ni day meroo ak ay wayjuram nee na woon ku meroo kenn ci ñaari wayjuram lu tolloog benn waxtu ci benn bëccëg nee na bay boo mu limaale boppam ci waa sawara li teg tuub man haajara ahada walidayhi saatan min nahaar kaana min ahli nnaari illa an yatuub benn heure la wax la ci benn bëccëg nga mere ko kenn sa sa ñaari wajur wala sa ñaari wajur yëpp nee na waxtu wa nga mere ne la wóor na ci waa sawara ga xanaa nga tuub kon ay wajur nuñ man di mel kenn du tongoog ñoom di leen mere waaye nag wayjur kenn du ko saaga kenn du ko saaga bu ne ne bu ko bul ne bul ne ko mbas wala cim bu ko gëdd na ngay wax ak wax ñu wax ak ñoom wax ju tedd saaga moom da koo jëllale te mi nga am nag aka tasaaroo aka bon itam lu mu tasaaroo tasaaroo waaye aka bon kii nga xamante ni sunu borom nee na jaamu ma ba noppi te teg ko ci muy wayjur nga lànk di ko toroxal ba di ko saaga bàkkaar bu rëy rëy la yonente bi alei salatu wasalaam nee na woon bokk na ci bàkkaar yi gën a rëy nit ki sàggan bay saaga ñaari way juróom ba mu ko waxee jaaxal na saxaaba yi de ñu ne ko yonente bi ah loolu de jaaxal na nit bu muy sàggane bay saaga ñaari way juróom mu ne leen lu mën a am la de ñu ne ko nu muy amee mu ne xanaa du ngeen gis nit ku daggal nit aw saaga ñu ne ah kay ñu ne kooka fay ñu ne waaw mu ne ko saagalu ñaari waajur tontu la mooy moom moo saagalu ñaari waajur tax saaga rafet te am na ñoo xamante nii bala ñoo bëgg rek dagg fa mu gën a ñaar nga tase koo xam ne moo koy gën a ñàkk jom bu ko daggalee fa mu gën a ñaawee mu xaqtaay jàll musiba la de lu mu tasaara tasaaroo ak fi mu gën a tasaaroo gaaraas yeeg yenn marché yeeg musiba la musiba nag mu ndaw mun lii nee na ci bàkkaar yi gën a mag nga xool li muy am par bis kuy daggal nit aw saaga wa mu gën a ñaaw mu fay nga xam ne saaga na ay waajuram saaga waajuru jàmbur ba noppi yaakaar na jàmmay xew te yonent bi nee na bokk na ca bàkkaar yi gën a mag moo taxoon feneen mu ne laa yadxulul jannata mannaanun wala aaqun wala mudminu xamrin ñett ñii duñ tàgg aljanna koo xamante ni lu mu defal ay way juróom di ko tiitaroo koo xamante ni du topp ndigaleel way juróom waxtu bu nekk daf daf leen di moy ak kuy faral di naan sàngara dëkkoo nee na ñooñu duñ tàbbi aljanna yàlla ci yàlla musal kon loolu mooy ñetteelu àq yi mooy booy wax ak ñoom ngay wax ak ñoom ci ay teggin ak worma te bañ leen a gëdd bañ leen a saagalu itam bañ leen a saagalu bañ a saaga keneen ñeenteel ba mooy luñ la digal nanga ko topp bu fekkee ak mooy yàlla nekku ca ndax sunu borom nee na wa in jahadaka ala an tusrika bii maa laysa laka bii ilmun fala tutihuma ilayya marjiukum fa unabbiukum bima kuntum taamaluun na nga leen di topp li feeg nag dañ daa digal loo xamante ni ak bokkaale la loola bu leen ca topp buñ la digalee itam loo xamante ni ak mooy yàlla la bu leen ca topp ndax yonente bi alei salatu wasalaam moo ne woon laa taata li maxluqin fi ma'siyatil xaaliq mbindeef kenn du ko topp ci loo xamante ni mooy yàlla rek kon way jur daf koy topp su fekkee lañ koy toppee lu neex yàlla la waaye def ko topp ci loo xamante ni ak mooy yàlla daf caa nekk juróomeel ba mooy bokk na ci àqi way jur mooy ngay wàcce sa bopp ci seen kanam te bañ a rëy rëy sunu boroom moo ne woon waxfid lahuma janaxa dulli min arrahma na ngay wàcce sa bopp ci sa kanam yi wayjur ndax amul fenn foo xamante ni itam war nga leen faa mën a juróom-benneel ba mooy soo tee toogeeg ñoom ñuy waxtaan waxtaanu mag ak gone léeg-léeg du ànd waxtaanu mag ak gone léeg-léeg du ànd mooy mën nañoo bañ a déggoo ndax mag lam dundoon mu weesu moom lay fàttaliku di ca waxtaane moo tax mag bu dee waxtaan ak mag ca la ñu gën a déggoo waaye nag yow mii ndaw la nag dafa bañ loolee ñuy wax te fekke woo ko mu bañ laa neex na nga leen di déglu bu fekkente ni nett la boo xamante ni bët bu set boo toogee ak ñoom ñu jaaraat ko répété ko na nga am woyof ak nag bët bu set nga déglu te di leen wax ne di leen xamal ne li ngeen di wax saf na loolu lañ dañ koo digle de di leen déglu ci ci buñ dee waxtaan doonte ne waxtaan wa ñuy wax ñuru la na nga leen déglu ñoom ñaari wëy te bu ca weddi dara bokk na ca war maal leen la ñuy wax bu ca weddi dara ndax weddi wax yi nit ci ñépp lañ la ko terewoon fala taqul li ahadin kadabta aw qulta gayra alxaqi aw axtata nit wuroo ko wurta wax ba noppi nga ne ko li nga wax bu dëgg wala da ngaa juum sax rawatina ay wayju juróom-ñaareel ba ci tënk mooy ay wayjur danga leen war di ñaanal yàlla buñ dee dund ak buñ fi buñ fi jógee suñ fi jógee itam war ngay siyaare ci fañ tëdd ndax siyaare ji ay armel yonent bi alei salatu wasalaam nee na woon masoon naa ko tere waaye digalaat naa leen ko kuntu nahaytukum an ziyaaratil qubur ala fa zuruha jëmmi jamono tere woon naa kuy siyaare ji ay armel waaye joxe waan naa ndigal ñu siyaare ji ko lu tax li annaha tudakkirukum bil axira ndax da leen di fàttali al axira rawati nag bu fekkee ña fa tëdd nag say wayjur la wala kenn ci sa ñaari wayjur dee fa dem dee fa dem néew na ñu koy def nag néew na ñu koy def yow sa wayjur nekk fi di dund bët bu set nga taxaw jàmbaar nga bët bu set nga taxaw nuyu ko nemmeeku ko mu jóge fi ay ati at jaaroo fam tëdd danga defe ne neex na loola loola la muy tegtale mooy ay bëtam bët bëtam nga doon warmaal bët ni nga xamante nit ñi am na ci ñoo xamante nii daañ la fekk nga ngay seen dëkkandoo di toog ñu di leen gis nii fuñ la dafa am dañ leen nuyu ndax yaakaar leen di waaye cey bu say say bët muuru nii dañ lay romb kon nuyu wuñ woon ngir ngir jëmmi yàlla waaye ngir ay bët a tax kon way jur wi la dëdd itam faatu ba tëdd ci bàmmeel jaaratoo fa te ba muy dund bët bu seen nga taxaw xanaa kon lam la doon gis a tax dee fa dem di nemmi di ko nemmeeku di ko ñaanal di ko ñaanal ñaan ya alquran digle woon te mooy waqul rabbirhamhuma kama rabbayaani saxiira yow yàlla yàlla na nga yërëm sama wayjur yi niñ ma yërëme woon bañ ma doon yar ba ma nekkee ndaw ndax ñaan lu ama am solo la ndax yonent bi alei salatu wasalaam nee na bu ci doomu aadama jógee jëfam yépp fay dagg ba mu def def sara sarax bu mu fi bàyyi woon boo xamante ni yiw waa ngay continuer wala xam-xam boo xam ne nit ñaa ngi koy jariñoo wala doom ju baax ju koy ñaanal doom ju baax aw waladun saalihin yad'u lahu moo tax ñu andi xadis doom ju baax di ko ñaanal kon nag say wayjur bu la dëddoo deel dem te seeni bàmmeel di leen ñaanal sunu borom jéggal leen moo tax sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu ne woon ñaan jër ta xeeb ndax dana jariñ ku tëdd ci biir bàmmeel dana jariñ kuy dund dana waral yàlla bindal la tuyaaba yow miy ñaan isid du'a yanfa'u maytan fil qubur wa yanfa'u al-hayya wa yujibul ujur moo tax sëriñ bi radiyallahu anhu ginnaaw lu mu digle ci lu baax moo cay jiitu moo tax mu daan ñaanal way juróom bu jigéen di maam jaaratullahi maryaama buso boo demee ca sindi di ma nga naan wa najjini wa jamia al muslimina maan wa najji walidati amina yallaahu yow yàlla yàlla na nga ma musal musal mboolem jullit yépp yàlla na nga musal sama wayjur wu jigéen yàlla na nga ko musal fii barsaxin maa xabrin kullaha wazaran wa min kurubin wa xawfin najji yallaahu comme tëgg ca barsax yàlla na nga ko musal yàlla na nga ko musal ci biir bàmmeelam yàlla na nga nekk ku koy dimbule yàlla na nga ko musal ci mboolem njàqare yi laa taxtabirha bi ma laysa bi qaadiratin wala tuxayib rajaha fiika yallaahu bu ko nattoo ci lum attanut te yàlla bo yàlla boo sooyal yaakaaram ci yow ku nekk xam na ne ko kon bàyyi woon na xel ay wayjur ba di leen ñaanal yooyu te nag mooy sunu royukaay kon ngal la yow itam nag deel ñaanal say wayjur buñ dee dund dee leen ñaanal wér gu yaram ak xéewal ak naataange buñ fi jógee dee leen ñaanal ak njéggal dee leen ñaanal ak njéggal moo tax nag wayjur bu fi jóge war nga koy ñaanal sunu borom jéggal ko yërëm ko gërëm ko di ko ñaanal sunu borom jaam yàlla bu mas a def ba mu nekkee àdduna sunu borom nangu ko te bindal ko ca tuyaaba ju dul jeex di ko ñaanal bàkkaar bu mas a def sunu borom jéggal ko ko te bu ko jéggalee ba noppi bàkkaar yam defoon mu soppil ko ko ay tuyaaba di ko ñaanal itam képp ku mas a yoral ak ci mbindeefam bi sunu borom fayal ko mbindeef yoo yee bañ bañ koo topp benn ak ëllëg yow yi xiyam te sunu borom boole leen ci ñaa xam ne yatuna yawmal qiyaamati aminina wala yaxzanuhum alfazaul akbar di di koy ñaanal ay wajur bu koy ñaanal ay wajur tam ñu bég yow juróom-ñetteel ba su la sa ñaari wayjur dëddoo wuy ji seen boroom ba tey wàccoo ak ñoom dee leen ñaanal comme niñ ko waxe woon waaye ñañ amoon ak ñoom ay kóllëre del dox kóllëre googee su fekkee bàyyi nañ fi ay bor fayal bor yooyee su fekkee am na luñ dénkaane woon fexal ba dénkaan loolu ñañ ko yayoo woon nga jox leen ko deel sàkk sarax itam di leen yéene tuyaaba ja loolu lu baax a baax la ndax bokk na ci toppatoo say wayjur biñ ci jógee moo tax Malik ibnu Rabi'a waxoon ne dañoo toogoon fa yonent bi alayhi salaatu wasalaam am waaj fa dikk bu jóge ci Banu Salama ne yonent bi ndax sama ñaari wayjur day dañoo faat ndax am na lu ma leen mën a defal lu leen di dégloo loo xamante ni su ma ko defee dab seen bànneex ginnaaw bañ faatoo yonent bi ne ko ah kay am na kay ginnaaw buñ faatoo ba noppi day yoral nga leen àq yi ba ca njëkk mooy na nga leen jullee na nga leen na ngay sàkku ci yàlla mu jéggal leen kuñ kóllërante woon na ngay wéyal kóllëre googee na ngay teral seen ab xarit na ngay jokk seen ak jokk seen ak bokk itam na nga koy jokk moo tax yonent bi alei salatu wasalaam waxoon ne buñ dee wax jokk ak bëgg bokk dëgg dëgg dëgg dëgg dinaa wéyjur mooy nga seet ña nekkoon seeni soppe ba ñuy dund ngay dem ci ñoom di leen nemmeeku loola da leen di dégloolu moo tax yonent bi mosoon toog ba bis mu jekki-jekki sol ay dàllam seeti genn ak màggat nemmeeyu dem toog ko moom waxtaan ak moom ba nopp ñu ne ko yonent bi fonk nga màggat yii de lu tax nga koy seet si mu ne màggat yii ngeen di gis day daa fonkoon sama soxna sa tuddoon Xadija daa fa ñëw lu baree bari ginnaaw Xadija wuy jina boroomam nag naa koy doxal kóllëre googu kon nag nga la bu fekkee say wajur am na ñoo xam ne ci wóor na ne fonkoon nañ la fonkoon nañ ko ba ñuy dund na ngay yëkk ay yëkkat ay hadiye di ko jox ñooñee ngir bégloo ak di dab sa ngërëmal wajur yooyee kon loolu ci tënk muy juróom-ñetti àq doom ju nekk yoreel na ko way juróom ñu dem ci tombam ñaareel bi bi mu jël waxtaan wi mooy àq yi nga xam ne tin nag way jur yi yoreel nañ ko doom yi yonent bi alei salatu wasalaam day dafa waxoon ne rahimallahu walidan aana waladahu ala birrihi yal na yàlla yërëm doom way jur boo xamante ni moo jàppale doomam ba mën a taxaw ca la ko waroon ci diggante digganteem ak moom loolu mooy lan yal na yàlla yërëm wayjur woo xamante ni jaarale na doomam fa mu ko war a jaarale bam ba doom ja xam waru garam ca moom ba def waru garam ca moom wayjur woowu yal na ko yàlla yërëm loolu kon li ñuy tegtale mooy ku nekk war ngaa def kemtulaay kàttan ba xamal sa doom la ko war ci digganteem ak wayjuram ndax mu mën caa taxaw bokk na ci yoon wi ñuy mën a dimbalee doom nag ba mën a toppatoo ay wayjuram la ca jiitu mooy baay nay tànnal doomam yaay baay nay tànnal doomam yaay ju baax yaay ju yiwee yaay joo xamante nii bu màggee moom doom ja du am lu muy xebet ci moom ak lu ko cay naqari loolu nag àq la ju doom am ci baay na ko baayam tànnal yaay ju baax yaay ju baax nag mooy yaay ju am diine yaay ju am diine ju baax nag mooy soxna su baax soxna su baax itam niñ koy tànnee niñ ko war a tànnee dañu war a tànnee boroom kër bu baax bariwaan nag ci àdduna boo waxee ñu naan soxna su baax yombut wala boroom kër bu baax yombut ak a bari nit ñi ñoo ko xatal nit ñi ñoo ko xatal ndax yow mi bëgg a tànn soxna su baax lislaam dana woon tànnal soxna su baax rek yem ca te mooy ko am diine ne la wër ko ci àdduna àdduna la wër ko ci àdduna wër ko ci àdduna nga waroon ko wër ci àdduna nga lànk ne du ma ko wër ci àdduna ci biir Afrique continent Afrique laa koy wëre tàmbali ngaa xatal biir continent Afrique du ma ko du ma ko wër fépp waaye ci biir Sénégal laa koy wëree du ma dem Gambie du ma dem Niger yaa ngi tàmbali gën a xatal biir Sénégal tam nga ne Touba laa koy wëree yaa ngi gën a xatal biir Touba nga ne quartier sàngam laa koy wëree quartier sàngam nga ne famille sàngam ak njaboot sàngam biir famille biir kër ga nga ne biir soxna ñii soxna si jub ci laa koy wëree bu ma ko amul jeex kon kay bari woon na yaa ko xatal yaa ko xatal luñ la wërloo ci àdduna nga di ngay xatal sabab di tëj ay bunt di tëj ay bunt ba mu def benn néeg nga ne fi laa koy wër boo ko gisul doo yow la waaye ku baax rek lañ la wutoon noonu nga koy seet ci soxna itam nga ko war seet ci góor gi jigéen itam am na am na sañ-sañu wut borom kër bu yibee bu baax waaye moom itam ci àdduna lañ ko wërale woon wërloo woon su ko dee xatal xatal ba mu nekk benn buntu ba mu def benn néeg mu ne fii laa koy am su ma ko amul amoo ku baax gis na ku baax waaye moo la am loolu ci waay man kon way jur ne tàmm tànnali doomam yaay ju baax yaay ju baax mooy bu am askan wu baax ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na woon gaa ñi de bu ñu dee denc soxna léeg-léeg taar ba da leen ci dugal léeg-léeg alal ja da leen ci dugal léeg-léeg jikko ja da leen ci dugal léeg-léeg diine ja dugal leen ca waaye man maa ngi leen di dénk nag na leen ca diine ja dugal ndax bu ngeen bu leen ca diine ja te mooy jikko ja bu leen ca dugal waaye leneen dugal nañ ca rek perte ngeen ndax mu ne ku ku denc jigéen ngir ab taalam taalam yàlla dana ko toroxal ndax taar ba day deñ taar ba bis mën naa ñëw mu deñ bëñ yi mu la doon ree sax mën naa xëy rek mu foq mu yow jàpp nooy def ah kon ab taar rek di seetaan ne soxna ndax mën naa deñ te bu deñee la la parce que mën na caa toppat ndogal te mën na koo dal te mu ñaaw deesu ko tànn itam ngir aw askanam rek ndax nit mën naa bokk ci aw askan ba nag wëlbatiku gën caa suufe gën caa suufe kon nañ ko tànn ci ko am diine te mooy jikko jikko daal bu alal toxoo taar toxu jikko moo fay def te jikko moom mën naa tax moo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne woon na ngeen di tànn fi ngeen di dugal seen ak njaboot te bu ngeen dee tànn ay soxna itam na ngeen seet ñaman a ànd ngeen boole leen ndax ab tey lañ cay yaakaar mooy muy luy continuer waaye lépp loo xamante ni wóor na mu tas tey ba neen koy bàyyi xel taxayyaru li nufatikum fankihul akfa boo ko tànnalee yaay ju baax ba noppi itam nag na nga nangu mu yore saw sant nang ko doomoo te lislaam nangu ne sa doom la looloo tax doomoo ku dul sa doom lislaam nangu ko ñu koy wax at-tabanni sunu boroom daf koo araamal ci wa ma ja'ala ad'iyaakum abnaakum ñii ñëw naan seeni doom lañ ngeen naan da nga leen adopté ak yu mel noonu yàlla nee na nanguma loolu daalikum qawlukum bi afwaahikum looloo seeni làmmiñ dong la yem waaye du du ñu seeni doom wallahu yaqulu al-haqqa wa huwa yahdi sabil te yàlla nekkut yooyu nekkut yooyu ud'uhum li abaihim huwa aqsatu inda allah doom ju nekk nañ ko askanal ci baayam loolaay di maandu fa in lam taalamu abaahum fa ixwanukum fi ddiini wa mawaalaykum wa mawaalikum su ngeen xamut ñuy seeni baay na ngeen leen jàppee mbokk ci diine tayam fa waaye kenn du doomoo koo xam ne du sa doom ñaareelu àq ba itam soo ko mënee jëndal am xar ngénte ko nanga ko ngénte ndax yonente bi moo ko digle woon ta nga def loo man nag ndax yonente bi moo ne woon kullu gulaamin rahiinun aw rahiinatun bi aqiqatihi tusbaku anhu yawma saabia wa yuxallaq ra'sa ku judd ku ne dañ laa tayle ci xaram ngénte ku judd ku ne muy góor wala jigéen dañ laa tayle ci xaram ngénte mooy ñu ngénte ko moo gën ci ku ko man ndax sunna la wat boppam ba te saraxal toll ne poids boobee ci or wala xaalis te def ko ngir jëm yàlla loolu rek nekkoon ngénte luñ ci tegaat aada la ñetteel ba mooy na ko wutal tur wu rafet tam tur wu rafet nag mooy tur woo xamante nii ku ko dégg xam ne tur wu rafet la day wuute nag ci place ak place ak gox ak gox la naaree jàppee tur wu rafet waa Sénégal bii am nañ seeni tur yu rafet yoo xam ne naar xamu ko kon ku nekk la rafet ca yow nga xamante ni boo ko tuddee sa doom duñ ko ca xeeb man nga ko caa tuddee waaye nag bu fekkee doon na lu yàlla turu la yàlla laal moo ci gën loo xam ne turu yónnente yi moo ca laal moo ca gën wala turu nit ñu baax yi ak soxna yu baax ndax yónnente bi moo ne woon ëllëg bis penc ci seen tur yi ñu leen doon wooye àdduna lañ leen di wooye kon nag da ngeen di rafetal seeni tur innakum tud'awna yawmal qiyaamati bi asmaa'ikum wa asmaa'i aaba'ikum fa ahsinu asmaa'akum ñeenteel ba bokk na ci àqi doom ci ay wayjur mooy nañ ko nàmpal nag nàmpal nag buñ yaakaar ne ndigal li ci góor rek la yem wala jigéen rek la yem waaye góor ak jigéen lañ digal ñu fexe ba seen doom nàmp doonte ne kay féete woo nàmpal su ko mënee mooy wayjuru jigéen wal waalidaat yurdi'na awlaadahunna hawlayni kaamilayni liman araada an yutimma radaa wa ala almawludi lahu risquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf su fekkee yaay am na gàllankoor ba munta nàmpal ngir wopp wala tële nañ luyee ku ko nàmpal te wayjur wu góoroo moo koy fay kon bu fekkonte da nga ne wayjur wu góor yoonam nekku te kon du fay loolu waaye bu fekkente ne wayjur wu jigéen te cosaan moo war a nàmpal te mënu ko ngir tële wala wopp nañ wuti ku ko nàmpal kooka bu jëree ñu fay ko sax na ko bàyyi fay kon nàmpal bokk na ci àq yi way jur yu yoreel seen doom juróomeelu àq ba ci tënk ba tey mooy nañ ko yar ci diine ak jikko ju rafet moo taxoon sëriñ bi ne woon wa minhu tarbiyatuka al awlaada li kay yanaalu ba'daha rasada nee na ginnaaw yar ci lañuy séntu nit ci jub ku yërwut di séntu ci moom ak njub waaye ku yar ci moom lañuy séntu ak njub li kay yanaalu ba'da rasada ndax xale bu ndaw nekk ab liir mën naa nekk lu nekk waaye ña koy jubbanti ba teg ko ci siraatal mustaqim mooy ñaari ay way juróom moo tax yonent bi nee na bu ñaari ay way juróom sàgganee mën naa nekk ab siif wala mu nekk ab yahud wala mu nekk ab nasraan waaye suñ baaxee tey nekk ay jullit jaarale ko fañ ko war a jaarale nag mën naa nekk ab jullit kullu mawludin yuladu ala alfitra fa abawaahu yuhawwidaanihi aw yumajjisaanihi aw yunasiraanihi na ko jàngal itam faratey jëmmam ndax sëriñ bi waxoon na ne yéen way jur yu góor yi na ngeen di jàngal seen njaboot yi allimu abnaakum sëriñ Tuubaa ko wax de na ngeen jàngal seen doom yi yu góor yi ak yu jigéen yi wa azwaajakum na ngeen jàngal seen soxna yi loolu nag bokk na ci li ñu gën a sàggane ñu ci jàmbaari dëgg-dëgg ñuy jàngal seen doom yu góor ak yu jigéen waaye soxna yi moom boolewuñ leen ci wa kulla man taallaqa bi azyaalikum ak képp ko aju ci yéen na ngeen ko jàngal lu lu mu bëgg ñu jàngal leen ko mu ne maa awjabahu llaahu alayhim seen faratey jëmm lañ bëgg ñu jàngal leen mu ne wa illaa sawfa tusaluuna yowma alqiyaama su ngeen deful lii ma leen wax su ngeen lànkee nangu leen a jàngal seen ak njaboot nangu leen jàngal seeni soxna nangu leen jàngal ko aju ci yéen nangu leen leen a jàngal bañ xam seen faratey jëmm ëllëg bis pénc danañ leen ko laaj ëllëg bis pénc danañ leen ko laaj mu waxaat feneen ne taallamuha walaw bil lughati ajamiyya nee na woon jàng farate jëm munta ñàkk doonte ne ci làkk bi nga nàmp ci lañ la koy jàngal kon waxuñ ne faratey jëmm da nga koy jàng ci làkk arab ak déedéet soo ko mënee xam ci làkk wolof nañ la ko ci jàngal wala séeréer wala bambara nañ la ko ci jàngal ndax sëriñ bi nee na ku sàggan ba defoo loolu jàngaloo sa njaboot bañ xam seen farate jëmm ëllëg bis pénc ci bul yedd ku dul sa bopp taallamuha walaw bi lugati ajamiya wa man lam fala yalumanna illa nafsa moo tax njàngaleen diine moom munta ñàkk yonente bi ne woon na ngeen di jàngal seen ak seeni doom julli ni ñuy jullee bu ñu amee juróom-ñaari at na leen jaral ngeen leen tey caw yar yu yu yu yu yu tàngut bu ñu amee fukki at te ngeen teqale góor ña ak jigéen ña te fa ñuy tëdd na ngeen leen jàngal itam mbir yi nga xam ne diine daf koo sopp lu mel ne buñ dee lekk ñuy jël loo xam nday joor te bañ a roy tubaab yi di lekk càmmoñ ndax yor fii ku yor fii forcet daanaka moom roy tubaab dong la kuy lekk da ngay jëfandikoo sa loxo nday joor na ngeen leen jàngal itam bu kenn tislee ñu ne ko yarhamkallah na ngeen leen di jàngal nuyoo ak mbaax ak bañ a tooñ kenn ak jikko yu rafet ak di yëglu yëglu rawatina yëglu yëglu bañ fu leen neex rek ñu ne fa bañaax dugg yëglu yëglu dañ koy jàngal ndaw rawatina waxtu tusbaar rawatina ginnaaw gee rawatina ginnaaw jullit suba xale lum tuuti tuuti war nañ koo xamal ne waxtu yooyu doo ko dugg sa néeg bàyyi wala sa néeg yaay te yëglu woo te yëglu mooy nga lafu ne asalaamaaleykum ñett yoon suñ nee na waaleykum salaam ne la jàll te nga doog di jàll kon yëglu moomu war nañ koy jàngal xale yi juróom-benneel ba wayjur war nay maandu ci diggante ay doomam ci jëflante rawatina ci wàllu alal lum jox kii na ko jox ka ca def lum may kii na ko may ka ca def ndax yonent bi alei salatu wasalaam nee na woon na ngeen di ragal yàlla ci seen ak njaboot te maandu ci seen diggantey doom ittaqullaha waadilu bayna awlaadikum kon maandu ci sa diggantey doom lu lislaam sàkku la juróom-ñaareel ba na nga nangoo dépensé alal nag ci sa njaboot bii nag Sénégal fonk nañ dépensé seen alal moom defe nañ ne moom doo nga fi ne baax na nag ndax yonent bi moo ne woon dërëm bi gën mooy dërëm bi nit ki fop di ko dépensé ci njabootam loolu nag kon na leen di nay dépensé ci ñoom ci seen ab dund ak seen koddaay ak yañ aajowoo lu mel ne jëndal leen ay ordonnance ci kem kattanam ndax sunu boroom moo ne woon wa alal mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf al mawludi lahu mooy wayjur wu góor moom lañ gàll muy liggéey ba am lu mën a dundale njabootam ak lu mu leen mën a koddaaye moo tax sëñ jooxoon ne ka sabrina ala aliyaali wa ihtimal adan min aljamici filan aw maqaal nee na njaboot dañ leen di muñal di jéem a gàddu loraange yi tukkee ci ñoom moo xam muy loraange jëf wala ay wax ndax léeg-léeg way jur def lam man lépp ci njabootam te njaboot ga duñ gërëm waxtu nekk ña ngi koy xarab ak di ko xas nee na loolu ñu lay xarab sëriñ bi wax nee na loolu ñu lay xarab ak di la xas yow way jur bu góor nga xam ne sa njaboot fayewuñ la lu baax da nga leen defal nee na na ngay muñ loola te xam ne fa inna fil iyaali turqan lil jalil nee na njaboot gi yàlla fàkk sàkk na ci ay yoon yoo xam ne ku ca jaar mën ngaa yegg ci yàlla jalla wa adnaaha ihtimaamun yaa xalil yoon ya yàlla sàkk ngir mën a àgg ci moom te jaare ko ci njaboot nee na ba ca gën a suufe mooy yitte woo leen bihim wa alaaha rida an rabbina maa tawakkuli alayhi zamana ba ca gën a kawe mooy nga gërëmloo yàlla ci sa njaboot gërëmloo ab dogal bii jóge ci sa njaboot te jóge ci yàlla nga gërëm loo ko fihim wal awsatul infaaqu alayhim wa ma bihi siqaaqu ba ca gën a digg doomu nag te nit ñi jiital ko mooy ngay dépenser sa alal ci ñoom wa xabsuka nafsa alayhim abada bila iltifaatika li kulli ma bada nee na ngay jëllale itam nag ngay jëllale naqar yi la sa njaboot di teg ndax njaboot gu dëng day am boo xam ne lu nekk dañ la ko teg ci ay naqar waaye nee na bul gestu naqar yooyee na nga ko muñ ngir jëm yàlla juróom-ñetteel ba xëy na mooy jeexal waxtaan wi mooy nga leen di ñaanal aw yu way jur day ñaanal ak njabootam waaye du leen ñaan yàlla luñ ko mën a teg ci naqar itam bu mu leen ñaan yàlla aw ay di wàcc ci ñoom ndax am na ku ñëwoon ci Abdullahi Mubarak ne ko di ko jàmbat doomam Abdullahi Mubarak ne ko sa doom ji xanaa danga koo ñaanoon yàlla aw ay wàcc ci moom mu ne ko ah masoon naa koo def de mu ne ko yaa ko lu ko dal yaa ko def hal da'awta alayhi qaala naam qaala anta afsadtahu ndax danga koo mas a ñaan yàlla aw ay wàcc ci moom mu ne waa mas naa koo def kay mu ne ko lu ko dal yaa ko def moo tax alxuraan ñu cay fekk mu naan rabbana hab lana min azwajina wa durriyatina qurrata ayun way jur wuy ñaanal ak njabootam la di ñaanal ay soxnaam sayidna ibrahima itam daa ñaan boroom naan rabbi ja'alni muqima salaati wa min durriyati rabbana wa taqabbal du'a yàlla yàlla nga ma boole ci ñay taxawal julli waaye yàlla na nga def samay samay njaboot itam ñuy taxawal julli kon maa ngi leen di ñaanal ware na itam di leen yërëm ndax yonent bi alei salaatu wasalaam nee na woon ku dul yëramaate dee ku la yërëm inna man laa yarham laa yurham moo tax yonent bi alei salaatu wasalaam am na bis mu nekk ca mimbar ba di xutba sax sëtam bi tudd alxasan daw si wut si ko far fakkastalu daanu daa jaral yonent bi mu wàcc ca mimbar ba gattani di ko yëkkati ko jàng aaya ja mooy innama amwalukum wa awlaadukum fitna waxoon nañ itam am na bis muy julli ba nekk ci sujjóot moom yonente bi sëtam bi tudd xoseynu ñëw war ci kaw loosam wa yonente bi guddal sujjóot ba lool ba saxaaba yaaka yaakaar ne daa am lu ko jot bam noppee ci julli gay saxaaba yi ne ko dañoo gis ne sa sujjóot bi yàgg na lool da yow yonente bi bañ yaakaaroon ne daa am lu la dal mu ne déedéet inna bni qad irtaxalani fa karihtu an ajilahu hatta yaqdiya xaajata sama sët bii moo ma wàkkoon sama sët bii di xuseynu moo ma wàkkoon di may sujjóot ma bañ koo daaneel moo tax ma guddal sujjóot bi xam nga ne kooku kon bàyyi na xel lool ak njabootam am na ci ñoom yërmaande kon mbokk yi loolu moo nekkoon wàccuwaayu ñaari wayjur ci lislaam loolu moo nekkoon àq yi wayjur am loolu moo nekkoon tam àq yi nga xam ne njaboot gi wayjur yi ameel nañ leen ko kon ñoo ngi ñaan yàlla sunu borom tabaaraka wa taala lu nekk ci waxtaan wi ci njuumte mu jéggal ñu ko te yeggale ñu ko fa mu gën a baax gën faa rafete tam defal ñu ko mu nekk ibadatan maqbulatan li wajhihi alkarim wa xidmatan maqbulatan lada alabdil qadim wa axiru daawana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh